waaw jërëjëf jërëjëf déglu nañ bu baax monsieur le ministre mhm. ci vraiment éclaircissement yu mu joxe. Mhm. muy éclaircissement yu boo xam ne c'est exact parce que il faut que ñu def ñu def différence entre le politicien. Mhm. les la dimension politicienne et la dimension technique. parce que je pense que moom euh, bi ma ko dégloo muy wax. xam naa effectivement ku am jaar-jaar ci wàllu koom ku am jaar-jaar ci planification ku am ku xam li muy li ñu ko indi la. donc mu nekk aussi loo xam ne dañ ciy féliciter euh, gouvernement bi parce que am na ay techniciens parce que moom technicien la boo xam ne mi ngi place am. vraiment li mu fi wax lépp ñun en tant que économiste dañ koy dëggal ci procédures yi am ak problématique bi mu posé euh, historique bi mu def ba mu ñëw ba ci rapport bi. loolu lépp ñun vraiment dañ ciy d' accord euh, ci lay entonné aussi ci dem ci aussi ci grand mu Ndiaye lu mu wax euh, mu nekk beneen dimension muy dimension euh, peut-être politique ou politicienne de de l' affaire parce que affaire xaalis affaire u xaalis pourquoi rapport bi bu mu ñëwee man daf ma tiital moom mooy que dafa am xaalis yu bëri yoo xam par exemple dëkku mel ni Allemagne bi Covid bi jotee ñoom may nañu seen cent milliards seen cent milliards de francs CFA. Euh, Union européenne je me rappelle cent millions d'euros Union européenne également indi nañ fi quatre-vingt-quatre millions d'euros ak euh, yeneen yoo xamante ne bi xëy na ay yu jële bi ci ay partenaires technique la yu ci bokk. USAID aussi gis na li muy daj dans le cadre de passe sunu budget pour que Sénégal aussi ñoom xaalis yi ñu fi indi parce que boo xoolee américains yi aussi dans le cadre du Millennium Challenge Corporation dañ fi indi seen xaalis donc yu mel nii bu génnee. Euh, dafa laaj ñu def un peu pour xool nu ñu koy étudier pour xool nu ñu koy dépasser parce que bi ñu créé fonds force Covid bi aussi amoon na yoo xam ne prévoir nañ ko ministère de finance mhm. je me rappelle que avec am na benn élément bu génnoon ma lire ko. Mhm. ñu ne dañuy taxawal benn conseil stratégique. Mhm. taxawee aussi benn comité technique. boo xam ba yoo xam ne ba léegi man gisaatuma seen fonctionnement par laas suite dañoo ñëw euh, bi rapport bi génnee aussi bi ma ko liiree gis naa aussi. Euh, ay euh, ministre yoo xam ne dana substitué wu ci ay DAGE ak ay nit ñoo xam ne dañuy am ordonnancement de dépense yoo xam ne ñoom waruñu woon a nekk place yooyu lool nag moom moo indi jiix yi jaaxa ci xol yi ci xel yi su ko defee euh, dafa am yoo xam ne dañ ciy interpeller monsieur le ministre parce que man aussi li mu jot a wax neex na ma trop parce que loolu ma ci comprendre mais dafa am yoo xamante ni bi aussi comme ni ko Moundiaye waxee il faut ñu leeral ko par exemple bu ñu nañoo par exemple euh, dans le rapport parce que rapport bi aussi ñoom admi état bi la rek ñoo ko bind ah, parce que état bi la rek comme que ni mu ko waxee cour des comptes aussi état bi la par exemple bu ñu par exemple euh, PNA mooy pharmacie nationale d' approvisionnement euh, demoon jaaree si ñoom xëy na lañ ñu jaayee matériels yooyu ñu jënd. Mhm. doon am na surfacturation de de de 983 par exemple. ñëw aussi duñu wax ay vaccin yoo xamante ne bii 70 pour cent yi dañoo périmé am na ci yoo xam ne daal yoo xam ne boo ko liiree ci biir rapport bi yu baree baree baree baree yoo xam ne dafa xaw a choquant dafa choquant quoi parce que tu da ngay gis ne vraiment ba léegi ñun Sénégal màggaguñu ci véritablement di euh, di di di di di fexe ba gouvernance sobre et vertueuse boobu bu ko mag Sall lancé comme slogan je pense que sénégalais bu ne moo ko waroon sol mbubu boobu bi ci des moom mooy euh, li mu Ndiaye wax mbir mi dafa am fu mu déparé parce que ñun dañuy jàngale en monnaie le phénomène de l'illusion monétaire le phénomène de l'illusion monétaire moom mooy que ne bu fekkante ne bi état bi ñi muy jox ay nomination wala ñi muy dugal ci affaire yi dañ leen dugal ci politique mm-hmm. xam nga tey jii Pape Ablaye yow soo nekkoon enseignant à l'université chaque fin ñu fay la un million mm-hmm. nga toog kenn xamu la mm-hmm. nga jël ci sa li ngay saraxe saraxe ko li ngay jox sa mbokk nga jox leen nga toog sa kër nga xëy benn jour société sénégalaise te aussi loolu aussi day interpellé sénégalais yi. seen rapport bi ñu am ak xaalis. nga xëy benn jour ñu ne Pape Ablaye nommé la. nga jëlee jógee de un million à cinq million par exemple. dafa am phénomène d'illusion monétaire parce que loolu illusion la pourquoi parce que bu ñu jëlee comparé sa dund bi ngay gagné un million kese. ak bi nga ñëwee mbokk yi ne kii dañ koo nome voisins yi ne kii dañ koo nommé militant yi ñëw. di nga soxla di nga soxla leneen. loolu te kon nu ko mën jaa waxee président moo fi déclaré en 2014 ne képp koo xam ne sa localité gagné woo ko. Hmm. dugal politique ba mu sës ci biir ci biir doxalinu état bi léegi ay nit parce que nit ñëpp yamuñu. Hmm. monsieur le ministre fi muy toog à son niveau moom di def kéem talaay kàttanam bu mu jóg. ñeneen ñi nga xam ne solo ñu mbubb transparence boobu day indi problème hmm. beneen bi eh, moom mooy que Sénégal aussi war nañu avancer je pense que ministère du budget def nañu ay efforts ci budget parce que boo xoolee réforme budget programme bi moom moo tax réforme yi mu wax ni à partir de 2012. réforme budget programme moo ko indi. parce que réforme budget programme UEMOA moo ko institué réforme bu yàgg la nag parce que mi ngi commencé aux États-Unis 1959. qu'on euh, euh, le budget à ba zéro là moom mooy li ñu commencé def États-Unis bu yàgg pour pour pour l'efficacité des administrations moom moo dox di dox ba min ba 2009 UEMOA génnee directives daan ne nañ def budget programme budget programme boo ko déggee moom mooy bu njëkk. dañ daan ne xaalis baa ngi ne nañ ko dépensé léegi ñooy déedéet besoin yaa ngi nii nañ fexe nañ ci a xaalis bi maanaam besoin yi dañuy njëkk a calculer extra yi maanaam euh, impact yeeg résultat yi la ñuy njëkk a jiital daan kon nañ dem budgétiser nag après donc xamul loolu day tax ñu indi ñu wax la performance de la dépense publique su ko defee léegi boo xoolee ni ñuy defar budget yi dafa ànd ak ce qu'on le projet annuel de performance maanaam dafa am benn document de cadrage xam ne si ñetti at lañ koy fixé muy document de programmation budgétaire et économique pluriannuel trois ans mu am ay DPPD yoo xam ne moo tudd document de document de dépense de programmation pluriannuelle des dépenses loolu bu ci ne day ànd ak aussi projet annuel de performance ministère ministère wax budget bi ñu ko jox lim daal dépense ci année bi yëpp def ko ci benn projet annuel de performance daan ne bu dee ministère de l'éducation la mu ne euh, abri provisoire yi bëgg nañ ci 6000 6000 abri provisoire yi bëgg nañ cee tabax par exemple en su ko defee bu ñu a na problème nañ xool nu ñu koy compenser loolu moom mooy li nga xam ne moo war a dox te loolu commencé gula dox je pense que Sénégal Covid bi moo xam ne moo xaw a perturbé budget programme bi mais sur le plan des documents documents yooyu yëpp ñu ngi ñëw mais mu am leneen loo xam ne aussi moom la budget programme indi muy transparence et accent mis sur le contrôle budgétaire à posteriori parce que boo xoolee Cour de comptes ak assemblée nationale dañ leen a defaraat tëggaat seeni responsabilité ci budget bi maanaam lu ñu planifié est-ce que def nañ ko léegi nañu ñu indi ce qu'on appelle le contrôle citoyen contrôle citoyen bi je pense que ñoom mu njaay ci la ñuy liggéey am na benn cadre multi acteur de suivi budgétaire boo xam ne am na ministère de la justice boo xam ne mi ngi koy toppatoo pour que ñu fexe ba pour citoyens yi ñu leen di ñu leen di impliqué ci affaire donc yooyu nekk na yoo xamante ne bi mooy deuxième aspect bi nga xam ne dafa manqué trop ba ay nit dem ci administration yi yaakaar ne ñoom alalu réew xëy na seen alalu bopp la ñu jël jaxase poche état bi ak seen i poche di yónni ay nit ay chèques quelques milliards centaines de millions ñu koy ñu koy tiré donc yooyu laisser aller boobu moom mooy li nga xam ne moo choquant ci rapport bi. mais damay damay jeexal rek ci euh, que ne résilience la ñu wax aussi il faut que Sénégalais bañ ko fàtte. mooy xëy na la tey gis naa ministre bu wax ko aussi sànq. si suba liir naa ko fenn mu ne <coughs> coow li ñuy coow yépp li mu concerne 7 milliards la donc loolu aussi même bu dee 7 milliards c' est vrai que y' a pas de justification parce que résilience la ñu xam nga résilience mooy lan. résilience du caagi ne nit ñi dañu yaakaar ne lépp ci dépense urgence lay doon ak ci affaire santé déedéet. résilience moom mooy nañ la fexe fexee en même temps fexe ba nit ñi mën a jóge ci lii bañ ci am gaañu gaañu bu mag mais ñu fexe ba ëllëg bu ñëwaatee aussi ñu am ay éléments yu ñu samp ci wàllu santé ak ci wàllu ñu mën ko encaisser. Mm. je que loolu moom mooy première étude bu ma am